am na ñoo xam ne ñu ngi doon investir seen leader à la même heure woote même concert de casserole pour tànqal euh, moment boobu noonu ba duñ ko dégg loolee tey jii nii euh, dafa xaw a waroo un peu ak li nga doon yaakaar ci ci tout le tout le Sénégal. mais écoute euh, <laughs> yow yaa ko wax concert de casserole pour tànqal tànqal. alors la loolu ko tax a jóg en fait. mais tànqal la politique c'est pas le bruit. la politique c'est pas le bruit c'est quoi la politique c'est quoi la démocratie. non c'est juste pour vous dire que ñoom dans leur tête donc à dans dans ma expliquer ci seen bopp euh, le président Macky Sall euh, mérité wul wala eggul fi nga ko fi nga ko bëgg a yóbbu yow. waaw mais ñoom ñu ngi woon ci place ci mbedd yi dañoo dem tëju pour def congrès d'investiture ci benn salle virtuelle donc ñoom war nañu interroger wu dans leurs actions c'est-à-dire que gis nga politique c'est les actes c'est les signaux c'est les symboles c'est-à-dire que boo nekkee ci mbir juróomi juróom-ñaari at nga xool lim la juróol lépp da ngay remettre en question remettre en question ta stratégie c'est des gens qui ont été toujours en marge de la République et qui ont pensé que la violence l'irrévérence l'insulte la calomnie la diffamation lu faux lu populisme nañ xool fan la leen indi président Sall na ko nañ xool fan la leen indi je pense que gis nga la politique si c'est une guerre de façon civilisée, même si on peut retenir ce terme-là. Mais cette guerre-là, ça doit être une guerre des idées programmatiques. Mais programmatique. Mais vraiment programmatique. Mhm. Mais Khasté Saga, je pense que c'est dans notre pays et pour le futur, on on y reviendra dans les perspectives. Mm on doit travailler à revenir à la normalité la normalité politique la normalité dans l'expression la normalité dans les formes d'action politique et la normalité ci dynamique politique yi constitué je pense que euh, ces gens-là aujourd'hui où on parle du Sénégal où on doit ouvrir une nouvelle ère une nouvelle perspective pour le Sénégal et pour les dix ans à venir euh, je pense que euh, ñooñu euh, il faut pas Euh, peut-être euh, euh, perdre du temps sur ça parce que je ne pense pas que ce concert man yëgu moon ni sax concert de Costa amoon na et donc je pense pas que am na écho. ah juste une dernière question à leur sujet avant ñuy dem feneen euh, c'était peut-être leur seul moyen euh, de s'exprimer ak aussi d'investir leur candidat parce que bëggoon nañ ko ci benn euh, stade bon pas stade bu euh, fan ak terrain ACAPES ñu interdire leen ko après nee nañu loué nañ benn salle ay manœuvre am ñu texe leen ko loolu aussi est-ce que c'est juste dans la mesure où vous AF APR vous Benno Bokk Yaakaar vous investi votre candidat tranquillement kenn bañ leen empêcher. waaw mais parce que on <laughs> on a un candidat qui est dans le cadre républicain dans le cadre politique dans le cadre de l'exercice de la démocratie euh, je pense que ñooñu euh, euh, c'est pour aujourd'hui li ma leen gis ñuy def c'est pour amuser la galerie. ah ça ne mènera nulle part. c'est juste pour amuser la galerie et les gens qui ont la liberté ils ont la liberté d'amuser la galerie dañ leen bàyyi ñu kon amuser la galerie.